taal bi sëñ Babacar maa lay ziar. baam nga jàmm. borom lu mu 19 novembre la bokk. non kenn du yow. le 19 novembre la ko waxee sakal jàmm. sakal fan nga fi muy dem. xam nga fi muy dem di topp sama ginnaaw dafa bëri. waaw ñaabu ndaw mi fi. waaw Alioune fi. Lac de Guiers fi ay combat choc yu métti. waaw xam nga. nag di nga ñaan suñu borom. parce que xam nga moo ñu gën a bëgg. parce que ni bu ne la yaay sama baay. naa leen say numéro yaay sama baay la sama baay xam nga ku amee la a demee ñu ngi naan suñu borom ma am sutura xam nga sutura ñu may la xam nga da nga koy da koy nangul lan maninam c'est un champion jàmbaar la dafa xas-xas mais nag lamb bi dafa am lu muy laaj lamb bi tey mooy xool la dëggum la foo ko laalee mu mu yëngu mais nag dafa am lee xam ni ñu ngi si suuf yàlla yàlla def jàmm ci kawam lañ jëm ñu koy dóor na dafa ci kawam lañ jëm ñu def xeex a ngi jëm yéen a ngi tëdd. yàlla yàlla def jàmm bañ jënd fii ba pare ma tontu de Maguette Seck. Baye Mbaye. moo fi 2000F lay jar. moo dem ci marché tey nga marché sànq nga asalaam bi ñu doon fekk. yaa ngi doon suñu benn wër leen wër leen. yow la yow la. waaw suñu benn waaye li ma wax. waaye li ma doon def. Sëriñ Mor koy fay. mais ñun toujours rek laa lay laaj sax lan la si lamb. sama retour. waaw. léegi rek incha allah léegi rek. mais ñu bëri nañ da ngaa simulé te di nga lamb. waaw waaw su ma simulé di ngeen ko gis. di ngeen gis programme bi après. waaw waaw incha allah. mais est-ce que am nga contrat boo téye am nga avance boo téye. waaw avance fan nga téye. Xaadim Ndiaye. Xaadim Ndiaye. waaw mais Xaadim Ndiaye dama la retraité. ah wóoru ma ne avance am laa lekk daal ma. wóoru avance am rek. waaw moom laa lekk. fay naa la. mi ngi fi mi ngi ci jàmm. waaw. léegi rek incha allah rabi. may la retouram léegi rek incha ci kanam lay toppal léegi waaw dañoo xamul rek waaw ñi wax loolu dañoo xamul rek dañoo xër rek Balla Gaye nan lay jëlee bis ni nit ñi toppee ci ginnaawam ak ni ko nit ñi bëggee mu jaral leen nit ñi Balla jaral leen lu ne muy am combat di bañ a entraîné loolu du wax loolu du wax waaw yàlla na ko yàlla lafal cat may la yàlla na ko yàlla lafal cat xale la xale bu ndaw la judduwul sunu kanam la juddoo sunu doom la sunu jarbaat la sunu rakk la da ko ñaanal yàlla labal ko cat xale yi bëgg nañ ko da ko ñaanal yàlla labal ko cat yàlla na ko yàlla labal lool loolu laa koy ñaan bisu tey bi yàlla may ko damu sedd waaw Bour Sine champion la. waaw naa ku ne. waaye na xam ne kii xale la xale la bu nekk si yoon. xam naa loolu. waaw Bour Sine bëri na ak bu nekk. waaye kii xale la. xale bu nekk si yoon la. dëgg la laaj. waaw xam nga man loolu aw ma dara lu ma ciy wax. ndax la ko téye xaw ma na ko téye. ma ko xaw ma dara lu ma ci wax. wax dëgg ba xam. ah Balla Gaye eh, Boy def ko. ah waaw ah, kon nag jeex na. Ah, man daal loolu lépp xaw ma dara lu ma ci wax da dem laaj ko waa CNG wala nga dem laaj ko ñeneen ñi dëgg lam waaye wax dëgg yàlla xaw ma dara li ko yee moo ko xam man xaw ma ko wax dëgg yàlla. waaw euh, la. démb gis naa seen gis naa ko signature bi xam naa ne pare na waaye Ama tamit gis naa ko fan ñoom ñaar ñëpp gis naa leen ñoom ñaar ñëpp ku ne jox naa la loxo ñoom ñaar ñëpp ku ne nuyu naa ne daal làmb ji làmb neex lay doon déggoo li ma la ah. làmb jooju ah. làmb ju neex la ah. xam nga tey man toll fenn ci làmb man aw ma fenn suñu géejawaay géejawaay laa am géejawaay laay tiitaroo muus géejawaay su jógee ma jóg ama sama doom la sama rakk la sama jarbaat la dina ma loo xamee ni ah du ma ko fàtte ba combat bi doo ko taxaw ku ne dégg na dama daa waxee waaye ci diggante bi Modou Lo am na lu ma ji comprendre nga ba loo xam ne wax dëgg yàlla mënu maa wax lu ñaaw waaye li ma leen ñaan yàlla defal leen jàmm Ama champion la Modou champion la Ama Baldé arène nationale nangu na ko te bëgg kaa gis Ama xam na bëgg na xam lu arène nationale di sax te Ama jógee Pikine gépp jóg en monde bi yëpp jóg ñëpp monde entier jóg Ama ba gëjee bëreeg léegi mat na 5 ans wala 6 ans comprendre nga su jógee Pikine gépp jóg ah vraiment tey bis bi nan xam ne bis bu neex te Modou Lo mooy roi des arènes nañ mu jël roi bi la ko jëlee ci kaw Eumeu Sène Ama nag ah du seetaan kon nag kon combat bu combat bi yomb te Modou Lo mi ma gis parewul pour joxe roi bi te mi ma gis daa foqat roi bi. waaw normal loolu la ci am. loolu la ci am. waaw mais ko neexee. mooy xale. waaw nii la mën a doxalee lan la mën a doxalee loolu nii mu def. Siteu su defee lii nii rek la mën a def toog rek xaar ko bàyyi ko ndax mooy xale. moo ñëw pour wut si. voilà lan moo ñëw pour may ko sens. mais est-ce que loolu li koy métti su bis su arbitre soufflé mu ko loolu dong la waaye nii rek la ma moom nii la war a réagir li mu war a def ci digg géew bi la ko war a defee la dëgër li mu war a def la dëgër ci digg géew bi la ko war a defee donc ñaan yàlla may koo ndam seen buy su bis ba am naa ne bis bi ñor na ko te am na fu mu ko teg li ñaan doomu géeja yëpp ñu gën tam jàppale ko waaw te ñu nit ñi ñu bàyyi ñu leen di jënd ay billets mbëri jënd ay billets di leen ko jox ñu dem supporté yi ñu ñëw buntu stade di jaay billets yi nan loolu loolu baaxul loolu baaxul lu géeja bay géeja bay la ñuy tiitaroo yëpp am nañ combat ñoo leen ñaanal yàlla may leen ndam ci bis bi ku ci mel ni jaatu daaw dafaal am na am na combat Gakko a Gakko 2 Ndigal am na combat Marley am na combat Jackson am na combat Aliou am na combat Balla Gaye am na combat sa Gouye am na combat Sa Thiès moo des Sa Thiès moo des ñu ngi ko yàlla yàlla may ko combat ndax tey xale yi ñu ngi jógee ñëpp lu dul semaine bi yàlla may leen combat ñoo ngi ñaan yàlla ñëpp ay ndam topp ci lépp ñoo ngi yàlla ay ndam topp ci yéen way ci kaw ci kanam. mardi mardi. mardi mardi. mardi ah, la waaw incha allah. mais loolu nekk na waa Sénégal. garaaw am problème dañ bàyyi def ci bopp yàlla baax. yàlla def ko ok. kon naan ci yow yàlla yàlla dugal ko. ñu ñaanal ñaamu ndaw. day ñaanal baax a baax yàlla may ko ndam voilà. waaw loolu ñuy wax laa bëgg ñu noppi rek sunu biir la ñu loolu amul problème di leen ko réglé waaw ñuy wax nan noppi rek yàlla baax na waaw.